mbokk julit ñi seetaan ci seen télévision Al Misbah ñu ngi leen di nuyu ci baatu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. barakallahu ñu ngi leen di ziyaara di leen dokkeel di leen ñaanal borom subhanahu wa taala fu ngeen mën di nekk yàlla na yàlla defal leen tawfiq ak taysir defal leen najaax ak salaam. ñu dellu waat ak yéen ci suñu jotaay bi ñu tuddee tafsirul quranul karim tafsirul quranul karim suñu xalqa bi passé ñu ngi doon waxtaan ci tafsiru suratul fatiha yaakaar naa ñu doon topp ci waxtaan bi passé euh, ñëwoon nañu yéen ba ci agradu tafsiru hadihi suura wala agradu hadihi suura ca mooy thème yi nga xam ni saar wi mi ngi ñu koy jàngal mi ngi ñu koy xamal ñëwoon nañ ci kazalika ci njariñu basmala ak li ci aju yépp ci ay njariñ yoo xam ni laa tuaddu wala tuxsa xañ na doomu aadama dina lottu ci leeral ko waaye lañ ca xamakus néew ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngal ñu ko ci dars bi passé leeral nañ ci suñu kemtulaay kattan tey nag ñu bëgg a gën a xóot ci e, tafsiru as-suura maanaam gën a leeral maanaa ayaat yi e, bu ñu xoolee e, saar bi ginnaaw bi ñu génnee ci bismillahi rahmaani rahim yàlla subhaanahu wa taala mi ngi commencé ci alhamdulillahi rabbil alamin ci suñu waxtaan wa jiitu woon ñi ngi doon wax ni du suratul fatiha rek moo commencé ci alhamdulillah boo demee ci alquran di nga fekk juróomi saar yu yàlla ubbee alhamdulillah juróomi saar suratul fatir ak surat yu mel noonu juróomi saar yoo xam ne yàlla subhanahu wa taala mi ngi ko ubbee ci baatu alhamdulillah kadalika alhamdulillah ni mu ko ubbee ci suratul fatiha ba mu fassiru ne dañ wax ni alhamdulillahi wa in lam tahmuduhu maanaam cant ñeel na yàlla kon cant ñeel na yàlla ajuwul ci yow nga sant ko la nga ñàkk ko sant wa in lam tahmuduhu yow nga sant yàlla alhamdulillah nga ñàkk sant yàlla alhamdulillah kon doomu aadama yëpp mënoon nañoo àndandoo jullit ñëpp àndandoo bañ a yàlla du tere alhamdulillahi ndax bada bi hamdi nafsihi qabla an yahmaduhu xaamid laata ko kenn sant la yàlla sant boppam te cant googu nag moo gën a mat cant jaam bi nga xam ne mi ngi koy sant borom bi subhanahu wa taala moo tax ci ba demee ci téere yi ñu lay wan ne eh, cant xaaju cant yi ñeenti sant la waaw am na xamdul qadimi lil qadim xamdul qadimi lil xadis xamdul xadis lil qadim ak xamdul xadis lil xadis cant gi ci ëpp doole gën cee rëy mooy sant gi yàlla sant boppam wax naa ni foo dem ci alquran gis alhamdulilah boobu kenn waxu ko ku dul borom bi subhaanahu wa taala mooy sant gi yàlla sant boromam jalla jalaaluhu wa azza kamaalu ñaareelu sant gi mooy sant gi nga xam ni euh, doomu aadama dina ko sant boromam léeg-léeg jaam bi dem ba yëg ni yàlla defal na ko xéewal am na ñoo xam ne fu ñu yëgee xéewal rek sant waaye bu ñu yëgul xéewal nag fàtte <laughs> moom la ñuy wax Shakir ak Shakur Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu mi ngi koy nettali ci xutbaam bu mujj boobu ñuy déglu li dàqale diggante shakir ak shakur waaw imma shakiran wa imma kafuran am na ñoo xam ne fu ñu xëyee rek am dara ci seen poos am xéewal am wér yaram ah alhamdulillah am na sax ñu ci àgg ci ñàkk jom ba nga xam ne bu ñu amee xéewal gu mel noonu sax ci la ñu gën a fàtte yàlla su boobaa ñu ni jërëjëf a diw fàtte borom bi subhanahu wa taala kon sant gi yàlla sant boppam sant gi jaam bi sant borom bi subhanahu wa taala foo yëgee xéewal ci yow nga sant yàlla même soo demee ba yëg sax ni amoo xéewal ndax yaa yëg yaa yow yaa ko yëg waaye xamoo sax li la yàlla defal ndax damay wax toujours ni euh, yàlla subhanahu wa taala def na ci yow loo xam ne benn ci xéewal yooyu soo ko bëggoon a sant wallahi sa dund yépp di nga sant ba kera nga génn àdduna ca doo ko matal benn góor dafa dem hôpital mu am problème mu respiration problème mu noyyi mu dem hôpital ñu samp koy biteel sampal ko oxygène defal ko ba mu mën a noyyi mu def fa ay waxtu yu néew biñu génné appareil bi ñu facturé ko ñaata la war a fay ñu jox ko facture bu mu nekk ordonnance bu cher lool góor gi dafa rot ci suuf sujud ñu ne ko waaw lu xew ba ngay sujud mu ni dama xam ne ba ma juddoo ba am lu mat juróom-ñett fukki at saa yu mu xëyee maa ngi nooyi te ngelaw li may nooyi kenn defaluma ko ku dul borom bi subhanahu wa taala mosuma cee laaj dara tey ma xëy mënatuma noyyi ngelaw loolu ñu samp may biteel ma noyyi ci lu mat ñetti waxtu ñu jox ma facture boo xam ne alal judul jeex la ndekete xéewal gi ma yàlla defal kon xaw ma ko woon allahu akbar kon xéewal gi yàlla subhanahu wa defal jaam bi kenn xamul lu mu toll benn nitu yàlla ngi nii koo xam ne feebar na ba mu yàgg muy sant yàlla di sant yàlla ba doom ji jaaxle ni ko yow góor gi yaa ngi feebar ba sa yaram bi mënoo jóg ngay sant yàlla ca la tax muy sant yàlla na mu sant yàlla moo jaaxal doom ji ndax dafa wax ni alhamdulillahi ladi faddalani ala kasiri min man xalaqa tafdila waaye maa ngi sant yàlla mi nga xam ni defal na ma ngëneel loo xam ni néew na mu defal ko benn doomu aadama ñaan googu la yonent bi waxoon ni foo te nit koo ñeewul dee ko wax boo gisee silmaxa neel alhamdulillahi alladi faddalani ala kasiri min man xalaqa tafdila yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñaan googu nga war a ñaan ngir sant yàlla yàlla maa ngi lay sant ci xéewal gi nga ma defal goo xam ne xañ nga ko ñu bari ndax silmaxa ba nga gis ndax handicapé ba nga gis ndax ku feebar ka nga gis yàlla musal na la ci loolu sant ko doom ji ni ko waaw góor gi lan moo tax ngay sant yow kootane ba naan alhamdulillahi alladi faddalani ala kasiran mu ni ko laa ndax man am na ku ma ci kaw suuf yàlla may na ma qalban shakiran wa lisaanan zakiran wa badanan ala balaa balaa'i saabiran lan la ma yàlla deselati yàlla may na ma xol boo xam ne lu ma teg ma muñ ko yàlla may na ma eh, maanaam ragal yàlla goo xam ni du luy bàkkaar bëgguma koo jige waaye yàlla may na ma làmmañ boo xam ni fu ma toll mën naa wax baatu laa ilaha illa ndax yàlla mayati na nit xewal gu gën a yaatu googu nga gis kon ni fa nga toog ba jàpp ni yàlla defalu la xéwal wallahi yàlla defal na la xéwal boo xam ni boo ko doon sant ba yowmal qiyaam du mat kon mooy sant gi yàlla di jàmb di sant borom bi subhanahu wa taala ca warul di dakk nag la in shakartum la azidannakum yàlla nee na fu ngeen sante rek ma ma dolli moo tax <laughs> nañuy sant gars yi Sénégal jàmbata fi gën a sant gars yi bañ nañ ko ba ndaka coona yi la ñuy jàmm sante ndaka coona yi koy nuyu da nga naan ko salaamaaleykum waa diw na nga def ndaka coona yi kon coona rek la ñu gis waaye gisuñu xéewal borom bi subhanahu wa taala te pourtant li ñu yàlla defal ci xéewal wallahi eh, wa in tauddu niamatallahi laa tuxsuha yàlla nee na li ma leen defal ci xéewal su ngeen jëloon di ko lim di ngeen dund seen dund ba mu jeex te mën leen a lim xewal li ma leen defal kon ndaka xéewal yi lañu waroon di wax waaye kenn warul wax ndaka coono yi kon xéewal yooyu yàlla subhanahu wa taala defal ñu ko nee na fu ñu sante rek mu yokk waaye fu ñu ñànkee la in shakartum wala in kafartum inna adabi la alim kon cant googu mooy cant gi nga xam ni moom la yàlla euh, sant jaam ñu bañ a def nag na séeréer bi defoon ah séeréer bi dafa def accident <laughs> daanu ndeysaan oto bi fiir ko rek loxo bi damm mu ni bërit jóg xool loxo bi loxo bi damm doom ji ni ko ay waay papa santal yàlla mu ni ko sant xanaa déggu yàlla la in shakartum la azidannakum su ngeen santee ma dolli leen man sama benn loxo damm mu nga bëgg ma sant su ma santee mbaadu <laughs> beneen bi du ñëw <laughs> ndeysaan la woon ci wàllu shukru kon sant yàlla subhaanahu wa lu am solo la ci jaam bi ñaareel bi mu ñetteelu sant bi mooy hamdul qadimi lil qadim ca mooy sant gi jaam bi eh, maanaam bi jaam bi war a sant moroomu jaamam كموي لا يونتي بخ تي حديث برك آه، من لم يشكر الناس لم يشكر الله آه، بو سنتول يالا نك دو مانا سنت دوم ادم مبوكي سكا يالا واتيغول ديفال دارا لپ لو ام تي يالا مينكو جار لي تي دوخ دوم ادم كون سنت غاغي نان ديو جيره جيف سانتو كو موم يالا غا سانت داخ لپ لوم لا ديفال بانك كوي سبحانه وتعالى موكو جوخ نينتلو سانت غي نك موي حمدول قديم آه، للحديث تي موي تانت ام سولو تي خاجو mooy sant gi yàlla di sant jaamam ni'mal abd innahu awwaab léeg-léeg jaam bi àgg ci maqaama ca tolluwaay la àgg ci maqaama bu tax yàlla subhanahu wa taala kontaan ci jaam bi ba ni ni'mal abd est-ce que sama jaam bi jërëjëf sama jaam bi ni'mal abd innahu awwaab loolu liggéey bu rëy la boo xam ne jaam bi da koy def digganteem ak boromam ngir mu mën a àgg ci martaba boobu kon saar yi commencé ci alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim firi woon nañ ko ca basmala ba ca mooy ñaari tur yi nga xam ne yàlla subhaanahu wa taala wàcce na ko benn tur bi mu xajal ci ñëpp jullit beeg yéeféer beeg ku baax keek ku bon keeg kii topp kii mooy ñëpp ñoo bokk arrahman su arrahman amul woon kon dund ci kaw suuf du mën a nekk parce que kon yàlla ku def ndaka dul noonu rek mu éliminé la waaye rahman jaa tax yàlla di seetaan euh, yonent yàlla ibrahim bi ko yàlla joxee malakutu samawaati wal arab yàlla da koo joxoon waaye diir ndax yonent yàlla ibrahima moo ko jaanoon yàlla ni ko damaa bëgg nga jox ma malakuutu samawaati wal ard liy dox ci kaw asamaan ak suuf yëpp mu man koo jàkkaaroo di ko surveiller yàlla ni ko ah ibrahima ndax àttan nga loolu mu ne ko wallaay àttan naa ko mu ne ko may naa la ko ibrahima toog fa mu toog rek gis ñaari góor ak jigéen buy njaaloo ci dëkk bu sori ibrahima tiit ah yàlla xanaa gisoo diw male diw ak diw ña kay mooy yàlla ci kaw suuf yàlla na nga li wàcc ci ñoom bugal yàlla ci ñoom bugal ci saasi mu toog toog rek gis kuy sàcc alalu jàmbur mu ni yàlla xanaa gisoo diw ma lay ma ngay sàcc alalu jàmbur di yàlla weer ko yàlla weer waaje ci saasi mu def ko ba bi ñett yoon yàlla ni ko Ibrahima waxoon naa la ma la joxee malakut ak sama waati wal ardi àttanoo ko ndax man wasa rahm wasaat rahmati kulli shay sama yërmande jiitu na lépp lu man di doon ci ca moo jiitu sama mer man yàlla moo tax yàlla mën a seetaan lu ne di xew ci kaw suuf yàlla ni pet tekk rek ndax xam na ni sàcc bu dul raw la jërul yàq nelaw ñun ñëpp ci moom la ñuy mujjee Euh, muy arrahmaanu rahim ñetteelu aaya bi yàlla subhanahu wa wax ni huwa malik yawmi diin yàlla subhanahu wa mooy buur di boroom mooy buur di boroom yaakaar naa ñaari baat yi bokkuñu ndax nit mën naa nekk buur di nga dégg ñu naan diw buur la nit mën naa nekk buur waaye mënul nekk boroom ndax buur ak boroom li leen wuutale mooy buur balaa muy def day diisoo nit lu mu am am nguur bala muy def amna na ñu muy diisool waye ki nga xam moy bour di borom nak buy def faalun lima yurid day xol lu ko neex rek sañ-sañam lay deme wa tax leeg nit ñi di juum naa diw borom sañ-sañ la subhanallah kenn rek moy borom sañ-sañ moy borom bi subhanahu wa taala moy faalun lima yurid mom rek moy borom sañ-sañ motax maliki yawmuddin yawmi diin bis penc amul kenn ku fay am pouvoir wala kartan kulul yàlla yawmal qiyaam yàlla day taxaw ne limanil mulkil yawm limanil mulkil yawm waaye tey kan moo fi am nguur wala sañ-sañ 40 ans kenn du tontu ñeent fukki at ñeent fukki at ñëpp taxaw di déglu yàlla yàlla laaj ci benn baat kenn du tontu li manil mulkil yow li manil mulkil yow waa kan moom moom tey waa kan moom moom nguur tey ñëpp ni teg kenn du tontu ñeent fukki at yàlla subhanahu wa taala soo ko tontu lillahi lwahid al qahar nguur daal tey kenn rek moo ko moom mooy borom bi subhanahu wa taala kon mooy maliki yawmi ddin mu ni iyaaka naabud iyaaka naabud yow rek yow borom bi subhaanahu wa taala yow la ñuy jaamu wa iyaaka nastain yow rek la ñuy sàkku ndimbal loolu di kalimatu tawxid parce que tawxid boobu su nekkul ci jaam bi bépp jaamu yàlla bu mu def day màbb il faut que nit ki gëm ni yàlla subhaanahu wa taala rek lañu war a jaamu mais jullit ñu bari bu leen laajee lan mooy al ibada xamuñu ko parce que ñu bari boole leen nee jaamu yàlla ñu yaakaar ne mooy julleeg woor jàpp na ni loolu mooy jaamu yàlla te jaamu yàlla weesu na julli ak woor loolu ci arkaanul islaam la bokk ponki lislaam yi juróom yi julli woor joxe azaka dem loolu ci ponki lislaam yi juróom la bokk mais dëgg-dëgg lan mooy lislaam yaakaar naa néeg bi ñu nekk nii saal bi ñu nekk dafa am ay ponk ponk yi moo téye saal bi loolu mooy arkaani yi waaye bu ñu waxee saal bi dëgg-dëgg ponk yi taxul kon ponk lislaam yi dafa am lu ko téye li tax ñu naan lislaam dëgg dëgg dëgg dëgg du ponk yooyu donc mais jaamu yàlla mooy lan li ulama tawxid di wax ni al ibadatu hiya kullu ma yurdihi llahu subhanahu wa taala min al aqwali wal afaal bépp jëf boo xam ne yàlla gërëm na ko jaamu yàlla la bépp wax bu yàlla gërëm jaamu yàlla la kon ndekete topp sa ñaari waajur ci jaamu yàlla la bokk dox mbokk ci jaamu yàlla la bokk zikr ci jaamu yàlla la bokk saraxe ci jaamu yàlla la bokk wax lu baax ci jaamu yàlla la bokk loolu yëpp ngay dajale loolu moo tudd al ibadatu loolu mooy jaamu yàlla moo tax loolu yëpp dañ ko war a def ngir jëmmi borom bi subhanahu wa taala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in yàlla rek moo ñuy dimbali amul keneen ku ñu mën a dimbali xañ na bu ñu ko waxtaani mayoon dinañ nettali euh, hadisu Abdullah ibnu Abbas bi muy ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am yàgg ñu war ci benn daaba yonent bi ni ko yaa gulaam inni uallimuka kalimaat mu ni ko xale bii dama la bëggoon jàngal ay baat waaye comme jotaay bi dafa xat bokk na ci baat yam ko doon jàngal mooy iza staanta fastain billah mu ni ko maa ngi lay laaye biir booy sàkku ndimbal bul ko sàkku ci kenn kenn ku dul borom bi subhanahu wa taala Seydi Hadji Malick nee na fa muftaxirun bi muftaxirin yunaadi yudaa'ifu fu fi kulli xiin Siraj Malick nee na boo fekkee ku new doole nga wéeru ci moom yéen ñaar ñëppay àndandoo daanu ci jaam boo mën di gis nag jaam ku néew doole la nee na kon booy nee booy weeru Serigne Babacar Sy ni booy wéeru kon seetal ginnaaw borom da borom dayo ya booy weeru seetal ginnaaw borom dayo ya parce que keneen koo weeru ku ñoom nga ànd ak ñoom daanu ci suuf fa muftaxirun bi muftaxirin yunaadi yudaif durfahu fi kulli xiin kon wa na nastain soo ko wax nag ihdina siraat yàlla yàlla na nga ñu saxal gis nga ihdina du yàlla na nga ñu jubal de yàlla na nga ñu saxal ndax jamono ji ngay julli kay yaa ngi ci siraatul mustaqim yaa ngi tegu ci yoonu jub waaye yàlla na nga ñu saxal la baat bi di tekki ihdina siraatul mustaqim yàlla na nga ñu saxal ci yoonu jub yoonu njub woowu nag mooy ban yoon mooy siraatul ladina an'amta alayhim yoonu gaa yooyu nga xam ne yow yàlla yaa leen baaxe woon ba ñu jige la ca mooy nabiyuna yi siddiquna yi shuhada yu saalihina waaye nag waxuma gayru maxdubi alayhim yow yàlla yàlla nag ma musal ci ña nga xam ne da nga leen a mere ñooy ñaari kuréel yi ma leen waxoon almaghduba alayhim wala daalin almaghduba alayhim mooy ñi nga xam ne yàlla da leen a jéppi ñooñu ñooy ñan ñooy yahudi yi mooy li tax yàlla jéppi leen mooy ñoo raw ñëpp dañoo jàng ba xam lépp xam yàlla xam li yàlla bëgg ak li bañ ñu ni ko fa ñu def lu leen neex moo yàlla tudde leen almaghduba alayhim ad daaluna ñooy ñan ñooy nasaraan ñooy chrétiens yi la tax ñu tudde leen an nasara moy ñom dañu réer ba jàpp ne aïssa moy yàlla ñu jël ko def ko muy doomu yàlla kon al maghduba alayhim ñoy ñoy yahudi an nasara ab daalun mooy nasaara ngay ñaan nak yow yàlla yàlla nak mo musal ci al maghduba alayhim yàlla nak mo musal ci ab daalun kon lolu ci teunk bu gàtt gàtt gàtt moy maana suratul fatiha di ñaan borom subhanahu wa taala mu defal ñu dégg ak top bo la ñu minal la alladina yastamiuna al qawla fa yattabiuna ahsanahu wa إذا دعوا إلى الله يلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته